waaye dafa am loo xamante ni tey mën naa ni dafa xaw a yóbbu nit ñi ndaxte buñ nee problème solution am na ndaxte tey ñun yàlla jox nañu li nga xamante ni moom mooy solution àdduna di solution allahira muy alquranul karim tey akan nan lañu war a mën a def ba sax dëkk bi nga xamante ni tey dañuy wax ni quatre vingt pour cent musulman ñoo fi am nan lañ mën a def buñ ci bu fi mënul dañit mu mën fee wàññeeku ba nga xamante ni nit ñi dinañ mën a récupérer waat seen doom parce que dama daan dégg benn kilifa daan wax ni daan na wax ne yéen borom kër yi dee leen jiitu seen i doom yi balaa ñu leen ciy jiitu ndaxte toll nañ ci jamono ji nga xamante ni tey gis nañ ni xale yi peut-être ak li am moo tax ñoom ñëpp ñu orienté wu mais naka lañ mën a def ba tey ñëpp delluwaat seen place delluwaat seen aada delluwaat seen cosaan ba nga xamante ni yi ñuy dégg ni tey Sénégal dina fi wàññeeku waaw xam nga jullit yi euh, walla Sénégal man mii nga foog ne xam naa benn baatu français niñ koy bindee walla nuñ koy waxee xawma ko ba ma juddoo sama yaay daf ma sama baay daf ma yóbbu ci daara ma dem jàngi ji alquran fu ne dem naa fa fi may gis nii fu ne dama fa dem man fu dem naa fa jàngi pourtant booba xaw ma woon na njëriñ li nii la mel de fu ne maa ngi toog dafa am benn conférence buñ ma waxoon ci ndar ci dëkk bu ñuy ci benn quartier bu ñuy wax baa senegal ne ma naa waxtaan ci xale yi pour ñu bàyyi yelwaan ñuy bàyyi yelwaan parce que xaw ma la nag lan am na financement yu war a ñëw xam na loo xamante ne buñ ko gisee dañuy yàqal nangam ak nangam contraire balaa def dama leen jël ma ne leen gis ngeen nit dafa war a yar doomam jàngal ko diini bul gis xale ne mu ngay sonn mu ngay dugg di yelwaan mu ngay taxaw ak nit ñi di yelwaan football a gën a métti da ngay romb ci mbedd mi ñoo xamante ne tànki neen lañ def ay deux trois heures fa gën naaj wa gën a tàngee ñu nga nekk ca bal ba di ko di ko di ko tël ñaq wi di satatate ci ñoom pourtant boo leen rombee doo leen yërëm de te nag tey bu fekkee ne boolab yalwaan la jël dugg ci kër gële dugg ci gël gële nga taseeg moom mu ñaq tooy xepp nga commencé yërmande buñ ko dóoree walla ñu yeew ko nga commencé te kat buñ ko yeewut ba doon jëmmi mag police dana ko yeew nga xam loolu police dana ko yew te foofa lay gën a nekkee gàcce seetal nit ki nga xamante ne dañ koo waroon a jaarale foofu jaarale wuñ ko fa ba mu xam am njaboot ñi jël baayam ne ko ràpp tëj ceene ko kon dugal ko ci oto dem ba ca rëbës yal nañu ci yàlla musal neel amin mu ngoog yal nañu yàlla musal ci kaso ñu daal di ko jël tëj ko fa loola moo xale bi nga xamante ne nii xale Euh, six ans sept ans moo def nangam ak nangam sëriñam ceene ko dóor ko ne ko jàngal di ko ëlbati lu ci gën a ñaaw mag mi tëj ceene ko yóbbu ko tem bàyyi njabootam moo gën a ñaaw pour pourtant tëj googu de moom la ñuy dawal kii nii ndax bu doonee mag luñ ko ko tëjal te ma gis ni nit ñi euh, dañoo ragal ak ñàkk foog ne nag ñàkk gi niñ koy do niñ koy ragalee ak niñ koy dawee noonu la fekk du noonu yàlla su fekkee ne dafa bind nit ci pour mu am lu mën a def day am su fekkee dafa bind nit pour mu ñàkk bu mu am dara lu mën a liggéey ak ci lu mën a nekk day ñàkk ba faw ñu ne nag tey euh, maa ngi dégg ci euh, Facebook bi koo xamante ne xaw ma ministre la woon xaw ma biñ ne ko tëril saaru nangam nam ko jaxasee keroog yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi sax mer nañ seetal doomu jullit yi ngay wax nii doomu jullit juñ ne kii jullit la mu màgg ba xam ay diplôme xam ay maîtrise dem ba xam ay doctorat am te benn saarab alquran bu wér munu koo tëri nga foog loolu yàlla du ci xisaab nit du ci mbugal nit du ci duur nit xel mi coono bi nga daj baam say diplôme yu baax te diine yàlla ji jaralut la nga dagg benn waxtu dem jàng ji saar yooyu pour mokkal ko ci doomu jullit ñaata ministre nga fi ñëw mokkaluñ Fatiha mokkaluñu dara ci diine boo koy wax sa dañ naan alors man de ah, xam naa ne mais xoolal loolu lu ko gën a doon gàcce te seen doom yi di leen di leen seetaan ñuy wax te loolu ñoom defuñu ko mooy gàcc defuñu ko muy gàcc te gàcc gi gën a rëy ci àdduna nag mooy loolu ñooña nag tey ñi jàngul diine ñooy ko di toji ay banque di sàcc ji di defi góor yi jigéen xam nga bànneex nit daf koy dund ba ca kanam dootul yëgati bànneex bi moo tax maîtriser maanaam nit ki mu ànd ak dal gi ko yàlla gi mooy ñaan ci yàlla yàlla defal ko ko moo gën ëddunaak li ci biiram parce que nit ki day nekk ci bànneex di nekk ci bànneex dem ba am alal bëri alal mais day mujj bànneex boobu dootul ko mënatee kii muy jël drogue su jëlee drogue mu ngi dugg dund nag ci yeneen milliers su jëlee drogue nag moo ko yóbbee muy def musiba yooyu moo ko yóbbee muy def musiba yooyu xale bi nag su fekkee ne dañ koo jàngal diine jàngal ko lislaam ak yu mel noonu mu nekk ci di pratiquer tey muy julli di woor di def nangam nangam muy mujj nekk nitu yàlla koo xamante ne ku sell la dara nekkut ci moom kon première liñ war a njëkk def muy yar njaboot gi ñi ca xas nekk moom le yàlla mën na leen a baaxal ñu bàyyi ko waaye gëwuma ko nag waaye nag nañ profité ci njaboot gi gis nga senegal senegal kay man daf ma jaaxal yàlla xam na ko ne Sénégal daf ma jaaxal yàlla xam na ko ne Sénégal daf ma jaaxal nit ñi nekkuñ ci dara geestuwuñ yàlla geestuwuñ yuruntu bi koy xool mu ngi ci tës tësi pour nu ko naka lay def ba am mais diine ak dal ah kenn xalaatu ko ci man de yaa nañu yàlla dimbale gën ñee suturaal gën ñee sàmm ba tey su ma xëyee ma mën a xam suma mburu def ci kafe naan su bëccëg jotee buñ toggee ceebu jën buñ toggee dëxin luñ mën a togg ma jël ci lekk ci ba suma xol sedd bu guddi jotee itam noonu na yaa nañu yàlla baal baalatiñu ku nekkul contre kenn waaye fu mu ne nii man mii fitu tey naa jël dara nii dem toji banque foog nga ne man mii xam naa ko ma ko amuma ko dem ci góor jigéen nangama nangam man mii da nga defe ne loolu civilisation maanaam salte googu da nga defe ne seexluwuma ko seexlu naa ko mais loolu lan moo koy may lan moo koy may doomu aadama mu dem ba toll mu mën a xam ni lii jomb naa koo def si fan lay war a mën a jaar pour loolu mën a nekk ci moom mu jomb ko mu ngoog très bien xam nga jombu jombu moo baax jombu boo ko defee rek jeex na duutoo ko def ba ilal abadul abidina fi ngay jaar nag ba jomb loolu mooy dañ lay yar tënk la ci saraatal mustaqima ngay yalwaani di dem ñii lay duur nga dem ba mujj sa mbubb moomu nga futti ko di nekk ci wàllu yàlla di nekk ci wàllu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam doo xam dara ba ma juddu ba léegi mosuma xam baal nuñ koy defee mosuma koo xam cinéma ba mooy xew mosuma faa duggu yaa ngi dégg mosuma faa dugg benn ab yoon te kat fu nii ña ma ko doon tere fu mu nii gaañu nañ sama bàyyi gaañu na ba mu gaañu léegi quatre vingt gaañu na sama sëriñ boobu gaañu na tey bu fekkoon ne tey kooku laa doon wax ne dama ragal walla dama kurus kon ka ma doon rus jeex na waaye jomb gi nga wax loolu nag muy mujj soppeeku ak jomb jomb ngaa def lu ñaaw jomb def lu ñaaw loolu moo baax ci la nit di tënku ba xàgg ci fi nit ñu baax ñi di xàgg fi nit baax ñi di xàgg ba nga xagg fa yàlla nag yaa na def loolu yaa na defal sëriñ mun taxaa mbake ak ak wir ak ak dal ak ak hubiku ci katanam ak ci man-man ya nu hubbi serigne bay si Mansour ci katanam ci dalam ba mana def li yalla santaane Cheikh Tidiane si khalifa Cheikh Ibrahima Niass fofu la jàngee fofu la njëkk a ci këri diini manam Cheikh eh, Tidiane si Cheikh Tidiane Niass waaw foofa laa njëkk a jàngee ci kër bay alaaji Ousmane Faati Ñas foofa laa njëkk a jàngee Tiwaawan maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak Njaasaan yeneen toox yi waaye ñim ñëpp nag nañ bàyyi nañ bàyyi xel di xoote ci lu yàlla waxut lu yonent bi wol waxut lu Seydina Muhammad waxut yal na leen yàlla musal ci seen làmmiñ yi ba bu mu ci hubbeeku di wax ca loola man nag gëm naa leen ñoom ñëpp man gëm naa ñëpp a am na loo xamante ne nag du ma ci d'accord kenn nag mënuma cee tax a d'accord adduna bi yëpp bu ñu àndoon loola du ma ci d'accord mënuma cee d'accord. muy muy muy lan noonu. waaw li nga xamante ne mënuma ci d'accord mooy euh, góor jigéen mënuma ci d'accord. yàlla d'accordu ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam d'accordu ci kenn d'accordu ci ñàkkaa wax gañ toog kum ci mën a doon ndem ñàkk nañuy wax ñàkkaa wax googu d'accordu ma ci defe naa bu leen woon ngeen dem ngeen tàllal leen seen microphone ñi wax parce que lu tax daawa boobu am solo dama doon wax kii ne ko yéen yéen ci daawa parce que tey bu fekkee ne tey fi nii fii nii ñaar téeméeri nit di fi nekk ñu filmer ko ngeen yóbbu ñaata nit ay millions millions millions yi nit bu ngeen ko tegee ay millions yi millions yi nit mën nañ koo seetaan ay millions yi nit kon yéen yeneen ci daawa pourtant loolu dafay tas ñaata jullit xaadir ak nag ak tijaan ak nangam ñaata jullit nit nit ñi dañoo doy waar doy waar goo xamante ne tey su fekkee ne keneen day wax ci diini duñu ko faale te bu sëñ Bay Si Mansuur waxee ñu ne gongo sëñ Muntaxa bu waxee ñu ne gongo mais loola riir la parce que alquran la ñuy wax xanaa ñemewu ñee wax lu dul alquran hadis la ñuy wax ñemewu ñee wax xanaa lu dul alqu lu dul hadis moom la keneen di wax waaye nit ñi ci boppam seen digg-digg ñooñu lañ ko gën a jox moo tax ma ne la xam na loo xamante ne moom duma ci d'accord am na loo xamante ne du ci d'accord ba ilal abadul abidina man de danaa wax fii waxkat yi yéen a ngi ñëw comme ni ngeen di ñëwee nii danaa wax ci yàlla wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye li ci benn nit suma baay def ay mbir ay karaama ay nanga ma toog di ca wax sànq ci suma temps lan la may jëriñ lan la may jëriñ bëgg suma baay nit ñi gën koo jox gëdd gën koo fonk loolu la may jëriñ mais loolo du njëriñ ab distance la tuuti ñu dugg ci bàmmeel ñun danañ dund ci bàmmeel lu ëpp ñetti téeméeri xat man mii di wax ak yow danaa dugg ci bàmmeel lu ëpp ñetti téeméeri xat lépp dagg lu dul doom ju baax ju koy ñaanal doom ju baax nag nit a koy prépareel boppam doom ju baax ju lay ñaanal nit a koy préparel boppam toujours damay def ay fiddaawu di jëy nangam Seexu Tijaan nangam mais damay toog ne pourtant doom ju baax buy ñaanal wuy juróom ci la ciy gën a jot loolu yonent bi sallallahu alayhi wa wax wala doon saalih ya doon loolu kan moo koy préparé yaakaar nga ne ñi ma la wax ne la mënuñ dara ci alquran lu dul ñu toog ci téléphone télévision kenn gaañu mbërëm làmbu gaañu wala musicien kilifa ak musicien yi daal dem ci kii ba ñu tàllal ko microphone mu wax ñaan nga foog ne loolu mooy ñaan dana ca jot déedéet moom moo war a préparer njabootu boppam gu koy ñaanal war di def jëf ju baax du ca dara képp ku dee ministre ya xamul dara ñëw di la jaaleeg jaal mi bëreeg du dara man maa la ko wax du tus nit ki dafa war a pare di jaamu yàlla di def lu baax bis bu génnee hëdduna ñu ne ku lii yaa ko doon def mu taxaw ci loola nekk am njëriñam yàlla nangu ko waaye ay nit ñu bëri kilifa ak nangam ministre nangam i ko kay premier ministre sax dem na fa ko kay nangam nga foog ne man sama gàmmu ak sama nangam nangam premier ministre ak nangam ak nangam bëgg naa ñu ñëw lu ñu fay wuti ñu xàmmewut ëlif xàmmewuñ baa xàmmewuñ dara lu maay bëggee ci sama daayira ñu ñëw fa sama munaasaba diini yee ñu ñëw fa pour lan pour lan te buñ jógee ko ñi nga delluwaat ca lañ nekkoon man bëgguma lool de préparation boobu la nit mën a def njaboot gi lay préparer boo préparer sa njaboot kële préparer njabootam ma préparé sama njaboot adduna bi yëpp préparé seen njaboot pour ñu jaar ci siraatul mustaqima jub def lu baax loolu nag mooy premier bi moom kon euh, mbokk yi xarit yi yaar na internet IM Télé yéen ñi seetaan day yaar na surtout yéen ñi nga xamante ni yéenay waajur yi sëriñ Mor li mu wax yaar naa yéen la gën a concerné ndaxte mooy li ñuy wax léegi jiitu leen seen doom yi balaa ñii leen ci jitu ba tax na yaa nek na kaddu yo xamanteni kaddu ñi rafet lu la li ñi def rek moy mbokk ya xarit comme ni ngeen ko xamé xamna dinañ amaat benen deuxième partie inshallah allah def rek moy dañ koy bayyi mu joxe mot de la fin ak kaddu yi nga xamanteni mom lay denk ñi nga xamanteni mom moy njabot gi su ko ñu mën ci teunku ngir euh, suñu aduna ak suñu alakhirah mën ci defaru waaw euh, xana di sante yalla di wax ni ab jullit day bàyyi xel ne jullit la moom moo taxaw tànn ne jullit la jullit nag boo ko njëkk a def nan nga tudd daam mu ngoog kële nu mu tudd buuna abuuna mooy sunu bàyyi yaa ngi dégg man maa ngi tudd sëñ Mor mooy Mouhamed ma judd ñu tuddee ma Mouhamed kee ñu tuddee ko Souleymane kii la ñu tuddee ko Fatimatu Bintu Zahra kii ñu tuddee ko Aïcha kii ñu tuddee ko Amina xam nga tur yu rafet lañ tur woowu naa fexe xam tur wi lan la may jiima def lu dëppook tur woowa dégg bon ma bokk ci jullit yonent bi al muslimu aquhul muslim yonent bi di lu wax ne taral muminuuna fi taraxumihim wa tawaadudihim wa taatufihim kama zali jasadil waaxid isastaka min udun tuddaa lahu shaairul jasadi fi sahari wal xuma nee na da nga gis jullit yi foofu nag maqaama la duma ca wax nee na da nga gis jullit yi ci seen bëggante ci seen soppante seen ñewetaante ñu mel ni benn jëmm nga def sa jëmm ji ak buuna muy benn sama jëmm ji ak man ma def ko muy benn def ko muy déwén mooy lan mooy tey sama jëmm ji suma benn baaraam bii bu ci dégg jamee sama yaram wi yépp a koy yëg sama yaram wi day tàng sama xol bi tang bo gisee sama beut yi da ngay gis mu xonk nit ñi duma di ma wax duma len meuna wuyu ndax lan ndax baram bu suri fam nekk te bu ndaw fa la dég gis nga ni ma participer ci metti bi niki nonu kat suma ma ben kaddu goo xamantene gu neex la nopp bi ko dégg suma damay sawar retan firi nga xol sama bët yi mu wex tal ma sawar nga nuyu ma ma tatagal la noonu nag ma mel noonu la jullit yi war a melante kon jullit yëgal nga ne kat li may wax nii jullit yi duñ ko dégg xanaa kay yi duñ ko dégg tey loolu tey bu fekkee ne am na eh, ci nit ki ndax xam-xam xam-xam bii nit di ko am dana neex ci moom su fekke ne tay nekkulu nit koo xamantene da ngay wonewu wone ne da nga am ku la togn nga jël ko tejj ko ci kasso gi taxaw yow ponkal nga da nga xamantene duma sa morom lu non la nit ñi di doxale bon bu boba non la alal di neex mais alal bu fekke ne nit ki daf ko am nako yalla wax mu ko cee del hañ di reer di bu lekk ba sa biir bi fi ne këpp nga naan ba mu fees jël doo mën a tey julli ay rakkaan na nga ko yemale soo toggee ku ñëw na ko tegal ne ko bismillah bismillah ñu bokk lekk yow fu mu nii oto ñaata oto quarante million cinq cent millions ngay wut ndax lan ndax lan te kat yow loolu sa seetal ndax lan ndax puukarew ndax wane ne danga am ke ñoo bokkoon di jàng nga romb ko fif wala yenn saa yi nga romb ko waaw mais booy ci loo nekk nangam nangam loolu ci la alal di neex mais alal buñ ko doxalee ni yàlla wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax waxuma kii wala kii ñépp laa wax président ba sax ci la bokk ak kilifa diini yi ci réew mi yëpp ak ñeneen ñi su fekkoo de ñu ngi ko doon doxalee comme ni ko yàlla waxee du neex mais ko pourtant loolu la yàlla bëgg de moo tax yàlla dafa am loo xamante ne may ak yàlla la yàlla ko yëkkati may koy may ko nit mu amee ko may gi nag mën naa nekk yàlla gërëm ko mën naa nekk yàlla di ko nattu ci am amam comme ni mooy nattoo nit mu feebar tëdd yàlla mën na koo jox am am boo xamante ne nattu la ci moom nattu bu rëy la ci moom moom nag mooy seet ba na ko gënal loolu na ci góor bàyyi xel jigéen bàyyi ci xel ah magam jigéen bàyyi ci xel magam góor bàyyi ci xel ndaw ñi bàyyiloo ko ci xel mel ni dañ koo laab di ko di ko di ko kii bu bëgg a dem ci lu bon rek ñu xëcc lii dem ba lu bon la passé ñu xëccaat ko nos ko la ndaw di xam laab fu mu nii nag réew mi dox nañ ba ñemeetu ñuy téye ndaw nam ware téye ndaw la ca war ñi koy def ñemeetuñu ko man ngandum daara laa yore woon di jàngale suba ba ngoon su pare paree laa xam ndékki bi maa ngi koy lekk ay six ak añ gouvernement bi nit lañ nañ bàyyi xel ci nit ñi fi nekkal yàlla suñ leen defalee seen bopp lañ defal suñ leen defalut seen bopp lañ bañ a defal te ñuy bañ a tànnatoo ñi ñee defal ak ñi ñee ban de bañ a defal ñi ko bañ a tànnatoo bu fekkee ne sëñ Mor dafa yore ay millions gouvernement jóge ko fële daal di ko defalaat nangam mu taxaw ci télévision bi nii kiti naakata loolu am na njëriñ amul benn njëriñ te nañuy joxe asaka nit ñi di jox asaka nit ñi di génnee asaka di jox ko nit ñi ñaata commerçant ñoo ñëw fii di ma wax seen nangam bi nangam seen nangam bi nangam dama leen di wax ne du dara lu dul ñàkk a génne asaka du dara lu dul ñàkk a génne asaka asaka yàllaa ko wax yonent bi ñëw leeral na yàllaa ko wax te nit du ko génne te kat taxul nit perte nañ di génne asaka yi nañ di génne asaka yi nañ di génne asaka yi gaañi lii danaa ko wax yowmal qiyaam buñ taxawee ca kanamu yàlla nit ñi ñépp toog danaa wax ne man de xam-xam si ma yàlla jox mu tuuti mu bëri taxawoon naa di wax nit ñi niñ génnee asaka yi niñ ko génnee buñ ko génnee nañ ko jox ñi nga xamante ne dañoo ñàkk dañoo nañ ko jox ñi nga xamante ne dañoo ñàkk naa sëñ Abdou Karim génne ay welook ay nàngam jox ko ñi nga xamante ni nii tey ñoo ñàkk ñoo ñàkk ñi jox leen ko loolu baax na soo joxee ngir yàlla rek nag jeex na yow yow da nga ne am yalla jox la loolu mooy lan am kooku da nga jottali da nga am sa alal ne ko am yàlla jox la mu yàlla la ko sant yàlla nga teewal nag ne ko yàlla moo la ko jox kooku noonu doo doo doo doo doo xaar ëllëg mu nga taseeg moom mu taxaw di la xormaal di la mooy xorma bu ko nit ki defee kat bëggaat dara la bëggaat nga joxaat ko dara waaye waru laa xormaal sax yaa ngi nit ñi la war a yemale rek nit ki ko joxee nag bu demee ba gis ne kii daal faalewu ko daf koy romb du ko nuyu mu koy taxaw di ko wax perte na perte na laa tabtulu sadaqaatukum bil ni wal aza bu leen yàq seen sarax yi ci may nit defal nit di wax ne man mii kat maa ko defal bu taxutoon ak man ak nangam ak nangam te yow joxaloo ko yàlla moo ko jox sula la ca tegalee aw saagaaw ndey itam nag ëllëg jëlal boo ko gisee muy def leneen lu neexut yàlla itam nag ba ko yow yàllaa taxoon nga jox ko ko jox nga ko ngir yàlla jaam yi yëpp yàlla moo leen bëgg moo leen bind te daf leen bëgg képp koo bëgg gën a bëgg bëgg gis nit bëgg koo bëgg xamal ni kii kat yàlla moo ko bind te yàlla bind gëm ko bind daf ko fonk wàcce ko ci kaw suuf nit dana defee lu mu bëggul yàlla nag képp kum bind lafañ ba ngaana ga gum bëgg ka xam tànk ka xam loxo ku mën a doon yàlla daf koo bëgg moo tax mu sàkk ko ci kaw suuf kon nag nañ leen bëgg lii mooy mission bi nga xamante ne moom laay joxe te maa ngi sant seen kilifa gi nu mu tudd Sow Seydou Sow yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla suturaal yal ko yàlla hubbi mu def ci yoonu yàlla yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa la moom moo ko ko sant moo koy def lii nag man de gërëm naa ko gërëm naa ko lool te yan na ko yàlla gërëm yan na ko yonent bi sallallahu alayhi wa gërëm yan na ay télé télé yu bëri topp ci yéen nag yan leen yàlla yëkkati ba ca kaw ñëpp gis leen xam nga doomu aadama yokkute rek la bëgg lépp lu lay yokku ci diine nag man taxaw naa pour bëgg ñaan ci loola waaye bu du diine d'accord ma ci du diine d'accord ma ci yal nañu yàlla sàmm yàlla taxawuñu yàlla xaaruñu yàlla xubbiñu di wax ne ndaw ñi nañ gën a góorlu ndaw ñeek mag ñi ñëpp nañ gën a góorlu yàlla may ñu téeméeri at ak fanweer yu wér kilifa diine yi nekk ci réew mi ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di leen ñaan seen lu baax li ñuy def yal na ko yàlla gën a yokk yal na leen ko yàlla gën a yokkal seen lu bon li ñuy def yal na yàlla def ñi teg ko ci kaw ci suuf sànni ko ca xàll ba ndax nit koo gis dana def lu baax dana def lu bon ba ci man mii ba ci sama baay sama baay daan na gàmmu ba ci digg gi mu ne gaañi ñu ne quoi ah, mu ne séentu leen ci kaw ñépp teen séentu mu ne ndax xam ne kenn ku wax moroomam ne ko yaa ngi may xatal bàyyi ma ma xool ci kaw seenu ma asamaan si ñu ne ko déedéet mu ne yàllaa ngi noonu nag fépp fu nit nekk mën na faa liggéeyal yàlla liggéeyal fi yonent bi sallallahu alayhi sallam te yoon wi du xaaj du jeex moo tax buñ falaxante buñ waxante lu ñaaw nañ nanguxante liggéey yu mag ñi liggéey yu mag ñi nañ ko nangu mag ñi liggéey nañ su fekkee liggéey nañ xaw ma ko sax nag su fekkee liggéey nañ yal na ko yàlla nangu yal na leen yàlla yërëm dugal leen aljana ci màggug yàlla ak yonent bi wasalaamu aleykum wa taala wa barakaatu. kon euh, mbokk yi xarit yi seen émission taxaw seetlu mi ngoog tey gis ngeen ñu ñëwoon fii ci ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mor Ka dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni macha allah. képp ku ko dégg da ngay am mbégte bu baax a baax xam ni kii wax boroom xam-xam la képp ku ko dégg dangay xam ni kii wax ci kër gi mu bokk këru diine la te Sénégal yaakaar na lii lañ fi soxla ay mag ñi nga xamante ni dañuy toog di delloo si ndaw ñi ñu wan wan leen li nga xamante ne moom mooy yoon bi wax leen li nga xamante ne moom mooy yoon bi nga xamante ne buñ fa jaaree ëllëg kat mën nañoo mucc ndaxte gis ngeen ni tey mbokk yi xarit yi ndaw yi sànku dafa bëri lool lool lool lool ba parents yi seen bopp sax xam ngeen ni ñoom seen bopp sax tiit nañ kon ñuy jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy sëriñ moorka moom it ñu koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam ba mu gën a yàgg di orienté li nga xamante ne moom mooy ndaw yi ci diine waaye di oriente ndaw yi ci li nga xamante ne moom mooy yar ndaxte suñu sëriñ ba da daan wax nii diine limi bari bari ci doomu adama yar yar moko wara gëna gëna bari ndax diine bu andul ak yar du la amal njariñ diine bu ànd ak yar rek di nga mëna jariñ sa bop jariñ doomu adama yi kuñ sëriñ mor ka ñukay jaajeufal bu baaxa baax di ñaanal waye duñu fàtte suñu kilifa gi nga xamanteni duñu juk ci di ñaanal muy sëriñ allaaji tayeru ka nekk sa siwal mom aussi tamit ñukay ñaanal bu baaxa baax di ñaanal njabot gi yëpp moom ñukay ñaanal yalla na guddal fanam bàyyi ko fi yalla gën ko suñu kanam mu yagu ñoo gunge mbokk yi xarit yi lii la leen andiloon tey seen émission taxaw seetlu ñoon and àndoon ci ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mor Ka dégg ngeen nag message bi nga xamante ne moom la wax ci li nga xamante ne tey moo xew si Sénégal moo xam muy mbiru góor jigéen moo xam muy mbiru lesbienne moo xam muy mbiru li nga xamante ne tey coow li jub na muy euh, taalibe yi ak sëriñ yi muy wàllu daara kon mbokk yi may gërëm bu baax a baax ki nga xamante ne moo nekkoon ci cadrage bi muy buuna kon li lan leen andiloon seen émission taxaw seetlu ba beneen yoon ak beneen taxaw seetlu